waay sàcc bi defa bëri ndox amul courant amul. fii ci sew xaay. fii ci ci daral bi yow moom amul. amul courant amul ndox. sàcc bi bëri na. sàcc bi hmm. dafa bëri li nga gis nit yi nit yi boo nekk ay sàcc la rek moo ngi fii dafa bëri. dafa ëpp dafa ëpp ci xor bi sàcc bi dafa ëpp ci xor bi. moom dañu nekk boobu ay cent mille quatre vingt quinze quatre vingt dix. Il n'y a pas de moto à 30 000, 15 000 30 000, 30 000 15 000 à Moule. 50 000 à Moule, 40 000 à Moule, 75 à Moule, 80 90. Hein? gendarmerie mu ngi fii waaye moom waaye moom sàcc boobu dafa bëri dafa ëpp lool gendarmerie dafa bëri dañu dañu dañu wóor dara bi waaye moom sàcc bi dafa bëri loolu moo tax xar mais gars yi seen xar yi dafa seer quoi dañ ci laxas jaan ay xar yoo xam ne xaru cinquante cinq mille la soixante mille ñu koy jaayee ay cent mille franc cent cent cinquante mille loolu dafa seer te nit ñi dañoo bëgg jënd xar tabaski dañ ñoo war a wàññil affaire yi ñu jënd ku nekk mën am xar moo tabaskee waa mais man soixante quinze mille laa mais xar bu ma laal gars yi lañ cay wax dafay xaw a seer ay xaru cent ay xaru cent cinquante mille cent vingt cinq mille te xaru soixante soixante mille yeeg soixante euh, soixante cinq mille yi la ñuy jaay prix boobu te loolu tamit dafa xaw a metti quoi nañ ñu wàññil prix bi ñu nit ñu jënd xar parce que ñun dañoo bëgg a tabaski quoi. non ren moo ëpp xar. Ah. ren moo ëpp xar fuuf. waaw ren moo ëpp xar mais moo gën a seer. gars yi nañ wàññi xar yi naar yi nañ wàññi xar yi ak pël yi. da ngeen cee laxas jaan. Euh, tur bi ak sant bi. Cheikh Nass bi maay chef correspondant Ngoundiane maay chef daral bi. gisee xar yi wàcc si nañ ndaxte li fi daaw ma ëpp. daaw ma dafa cher. dafa cher ñun def na du tout problème bi dafa wàññiku bu baax diggante Côte d'Ivoire ak Mali dafa am problème waaye gars yi ubbi na frontière lu bëri dem na Mali daaw ba léegi ba manka am xar dafa cher xar dafa cher manka bi manka bi mu ñëw rek jur bi dana cher loolu nag la waaye cherul bu ko am soixante quinze am quatre vingt cent mille loolu am xar loolu yaakaar naa ne dafa cherul cherul ti ak coono bi ni mu daal ti ñoon yaakaar naa ne cherul da ngeen doon ti ñoon amul taxe déedéet bu dugg ci Sénégal amul kenn dafa am problème bu bëri Mali bu am cinq mètres rek dana fay waaw waaw Mali boo jógal xaay rek bu fayul quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-cinq mille du jàll du jàll déedéet du jàll mu gën a cher kay waaye dafa am jafe-jafe fii ñun seen mari Sénégal dënd na taxi waaye fii dindu ko dindu taxi foo xari taxaw foo mu fay sept mille francs ampoule dix mille francs Eh, mbaare dana fay dix mille franc mbaar militaire yooyu xam nga loolu ci kaw xar lay nekk dund bi ci kaw xar lay nekk sàmmi boobu dëgg xar lay nekk loolu maa andi cher ay xar bi moom boppam dafa cher après duuti bi li yi def taxi taxi war na am ñaari weer yooyu war na yëpp amul la war a doon borom xar war na am foo taxaw amul taxi foo xar yi taxaw amul taxi loolu gars yi amul loolu foo mu taxaw rek mu am taxi. fii ak julli gi yaakaar nga ni daal ku bëri dina tànn xar mu ngi ñëw xar mu ngi ñëw sugoon ñëw waaye ba mu jëkkoo ak jéema tey ak eh, añaara xar dafa watay maam manki waaye xar des na foofu Medina des na lu tool trente wata walla yooyu loolu la wax ministre Korog ne dimbalmenti wata yooyu waaye jéema ak añaara des na xaro mënul ñëw sax wata bi ma amul loolu mooy problème bi Numbe Fall looy def ci dara xanaa damaa ñëw rek taqale parfum rek di jaay ma ne ndax yàlla maam ci rek am xar waaye lii ay deux ay téeméer xam nga ni maanaam te njaay mi demewul noona matulum xar te ma jaboot ah xanaa nag diis ko doomu aadama yi rek. xar xar dafa daa seer. ah ñaar ah, juróom ñaar fukk bu ndaw ba gën seer nag moom kenn waxu ko boobu deux cent te lii rek laa yor lii rek sëñ bi. jaaxle rek jommi rek jaaxle rek jamono ji metti lool lii rek laa yor maa ngi nii. waaw ah, noo Salim Sibi xam nga ñun suñu problème affaire sàcc yi moo problème première première wax deuxième wax ñun du ñun moo moo defee xar bu cher xar président. Eh, president Mauritanie nee na dafa manqué ci ci Mauritanie jaro ja eh, affaire affaire président nee na du dem bu bëri parce que dafa manqué ci Mauritanie mënul bàyyil ma dem bu bëri léegi li nga ñëw fii bëriwul après affaire yoon bi dafa dafa métti dafa bëri ay fay dafa am poste Mali mun na fay dafa am douane yaa ngi fay dafa am moto maa ngi fay بروم جاي من في كرة يانجي في ندخ يانجي في افير بلاس بي يانجي في 50 ميل ام باغاي في اكل اكل نيون مانجي توك بص بحتل قرد خر ايوه بوليس نيول قرد خري دقي السلام عليكم ورحمة الله نيون دم لول موتخ افير خري شيرنا دون يون موكو شي دون يون موكو دف شير خر Moi, je viens au faire 65, 70. Après, je suis un pagaille, un feuille. امنا له امنا له في دواي امنا له في بوست بنا بنا بنا يانجي في بوست بفي ابري بنيو في يانجي في يانجي في بلاس اك اكورا اكيب ابري خربي يب جاينا كو تيموري تاني مقنا بري في نيو نيو نبوتوتي رك بكول عقداو نيرك jeex na salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Sidi Mouhamed si bi. man fii man fii laay liggéey fii Mauritanie laa jóge xam naa ñun ñëpp ay Mauritanie lañ jóge waaye euh, mën nañu wax mën nañu wax jërëjëf Sénégal mën nañu wax jërëjëf gouvernement Sénégal ak suñu mbokki Sénégal parce que ñun fi suñu pro suñu problème fii bariwul waaye am na yeneen problème il faut ñu wax ko Euh, pour gouvernement bi mën nañu ko arrangé suñu problème bi ay comme daral bi daral bu bees amul ndox amul courant sàcc tamit am na gendarmerie mën na liggéey waaye sap sàcc dafa ëpp mën nañu jàpp mën nañu da am na kuy daw kenn mën na ko jàpp waaye am na fii sàcc waaye alhamdulilah problème sàcc affaire bi sàcc bi bëriwul waaye suñu problème ay problème yoon bi parce que xeewal Sénégal bii xar yi xar yi day ñëw fii Sénégal xar waaye xamante ni day jaar si yoonu maali yoonu Mali bii tamit dafay métti dafay métti suñu diggante ak Sénégal ak suñu dig suñu diggante entre Mauritanie ak Sénégal soriwul il faut duñu naa duñu ñaan euh, suñu président Sénégal ak suñu président Mauritanie pour mu dimbali ma pour ñu am benn yoon du jaar si yoonu Mali parce que yoonu maa oto bu nekk day jaay oto bu nekk day jóge Sénégal ay xar Mauritanie day dem Sénégal day jaar si Mali ci benn ci ci ci région kaay oto bi day taxaw foofu bu fay ay quatre-vingt mille ak nangam amul transit amul dara loolu mooy def affaire xar bi dafay métti ci biir Sénégal bi amul lu ñu fay parce que taxe amul douanement amul. xeewal am na alhamdulilah bi ci Sénégal bi amul benn problème waaye suñu problème suñu xar fii il faut duñu ñaan pour ñu am yoon digg suñu diggante ak Sénégal pour ñu bàyyi yoonu yoonu Mali bi avant avant am na am na souvent euh, tabaski bi day ñëw fekke noor bi ñax amul il faut ñu jaar si yoonu Mali waaye léegi comme tabaski bi ti nawet bi laay ñëw du ñu buggee ñu jaar ñu am yoon pour pour mën nañu jaar si yoon Mauritanie parce que Mauritanie léegi am na taw am na nawet macha allah waaye nag il faut ñu am benn pont wala am na benn euh, gouvernement mën na ubbil yoon foofu pour ñu am lu ñu traversé foofu balaa ñu jaar si yoon yoonu Mali parce que suñu dépassement bi dafa ëpp dafa bari trop trop moom moo yàq moom séeral affaire bi yëpp ak affaire ak ak affaire sàcc bi aak affaire sàcc bi tamit ñun ak suñu gendarmerie du ñu liggéey pour ñu wàññi affaire sàcc bi jërëjëf